mbokk yi ñu ngi leen di ñëw ñu ngi dalal fii tey euh, kii di Mor bu Parcelles ak euh, Fadam 2 ah, ñoom ñaar ñëpp di yëngu ci wàllu làmb ñu ràññee lañ ci loolu mais ñu ngi jëm ci benn bés boo xam ni bésu jeunesse bi la euh, promoteur bi jeune la. mbër yi koy bëree jeune lañu xam naa jeunesse bi moom mooy ëpp euh, fële ci arène nationale donte dina am ay mag ñoo xam ñoo ngi fa ndaxte bisub làmb la kon euh, jeunes yooyu noonu ñoom la ñu jàkkaar lool nekk ay jeunes ñoom ñu partagé li nga ni moom mooy làmb ji alors tey euh, Mor bu parcelle Mor Diouf mais Mor bu parcelle lañ koy woy loolu mooy carte d'identité pour mm. ñu mën ko xàmmee bu baax a baax ñu ngi jëm ci benn journée jamaïcain lamu mu defoon Gambie moom la bëgg a defaat Sénégal ci bés bu mag diggante ñaari jeunes yoo xamante ni ay espoir lañu ci làmb ji Pape Ndoye rakku Lac Rose ak ki nga xamante ni moom mooy euh, abu Niasse nekk ki nga xam ni xaritu Siteu la kii Lansar kii Fass Ndakaaru lan nga ñuy wax ci affiche boobu nga xamante ni jamaïcain sa xarit moo ko tëgg dimanche incha allah. waaw pa Maguette ñu ngi lay nuyu waa di nuyu waa Sénégal di nuyu tamit euh, auditeurs yi suivre euh, émission bi yëpp ñu ngi leen di mm. nuyu ku si nekk turam ak santam. Mm. waa di wax waa Jam Production bi dañuy ñëw dimanche le 21 c'est stadium Iba Mar Diop te d'affiche bi diggante abu Ndiassé bu Lamsar ku xam Abou Ndiassé xam ne mooy bras droit Siteu foo gis Siteu da nga ko fa gis. foo ko gis di nga gis Siteu. waaw mu ngi daja nag ki naan euh, Pape Ndoye bu écurie Fass. waaw di doomu ndey Gris 2 foo gis foo ko gis di nga gis Gris 2 foo gis Gris 2 di nga ko fa gis. waaw muy affiche bu am solo. waa ñu ñëw tamit euh, si spécial tamit bu am solo diggante Mamor les Tigres ñu ngi ko booleeg Cheikh Super jamono bu école de Fadam. waaw ñu ñëw tamit ci troisième affiche bi ñu ngi ko def Franc Mbeur bu parcelle ah ñu boole ko ah, Siteu bu Ngor te xale boo xam ne mën na ne pénc moo topp ci ginnaawam mbooloo bu doy waar lay dugal ci stade ah, Franc Mbeur tamit di mbër moo xam ne tamit ginnaaw boo am doole moo koy topp parcelle ça veut ñaari xale yoo xam ne moment bi làmbang leen di bàyyi xel. Hmm. waa di journée bu am solo bi ñu war a jëm dimanche bi stade Iba Mar Diop. disposition yëpp nag mën nañ ne pare na lépp mën na waaw lépp lu ñu waroon digganteem ak CNG bi ah def nañ ko ba pare lépp lu ñu waroon tamit si diggante côté sécurité tax ku xam abu Ndiassé xam Pape Ndoye hmm. xam ne affiche bu mag la hmm. affiche boo xam ne bépp matukaay bi nga war a jël pour amateur bi fay ñëw nekk si jàmm hmm. waaw d'abord da nga koy jël soo gisee ne dañu renforcer sécurité bi nu waroon jël Iba Mar mën na ne cuun ban waxtaan ak moom dañu ko dubleel parce que tamit bëggunu kenn ñëw benn violence di am ci stade bi parce que làmbu xale la te tamit dañu boole ay mbër yu am ginnaaw mbër yoo xam ne gox da leen topp waaw mun naa ne soo gisee ne sécurité bi ñu renforcer ko loolu moo ko waral. Hmm. ci côté yëpp tamit euh, pare nañ ci ba pare. Hmm. soo gisee tête d'affiche bi muy Pape dooy Abou Ndiassé ñu ngi ko jagleel Lat Diop ah di directeur LONASE mu koy waajal tamit ak ay mbokkam. Hmm. waaw Mamor Cheikh Super Jamono ñu ngi ko jagleel les marchands ambulants de Dakar. Mam Mor nekk njiit bi moom mu dara jaar ko Alioune Ndoye hmm. waaw ñoom nag ambulant yëpp ñu koy waaj ambulant dakaar yëpp ne ñoom ñoo fa war a ëpp amateurs yi ñoo fa war a ëpp si supporters yi ne hmm. bis bi kenn du leen si ëppalee dara. Hmm. soo xoolee si bu Ngor Franc Mbeur ah ñu ngi ko jagleel ma la Diop waa di borom ah, waaye di borom Kër masaar waaw mhm. nekk ñaankat bu mag waaw moom la jagleel drapeau bu daal. parce mhm. que kanam ñu ñëwaat si programme bi. Oh, kon boo boo boo boo waxee loolu eh, wax nga tamit ci ñi nga xamante moom mooy eh, ñiy bëree combat spécial yi ak ñi ñu ko tuddee ku mel ni ki Lat Diop Massi la ak ñeneen ak ñeneen drapeau marchand ambulant yi te wax nga ay xale yoo xam ñoom ñooy bëree eh, combat spécial ñoom itam ñu am ginnaaw la ñu rawatina ñiy bëree grand combat bi léegi pour ngeen taxawal combat boobu noonu est-ce que nekk na loo xam lu yomb la surtout digg diggante abu Niasse ak Pape Ndoye xam naa jafe woon na tuuti de. waaw Pape Maguette mën nañ ne jafe na jafewul parce que affiche boobu ba muy taxaw mu ngi fekk Jamaïcain euh, ak ak Gambie la ko fekk. Mhm. mën nañ ne ñaari mbër yëpp man maa wax ak ñoom wax ak seen manager. waaw ñu siy remercier tamit fëgg la mën na ne côté abu Niasse moom moo tax sax combat bi gën a taxaw si booram quoi. Mhm. waaw lépp lu ko si waroon def na ko si dañ ko si remercier bu baax baax. Mhm. waaw jë côté Gris 2 tamit waaw jàpp na si côté PAM Ndoye parce que benn yoon laa déggante Gris 2. Mhm. moom it mu yombal affaire yi ma woo seen ménage seen ñaari ménagère arène nationale muy mag Mbargane Ibrahima Mbaye. ah ñu finaliser. loolu moo tax combat bi noonu lañ ko taxawalee daal. waaw léegi ñu jëm si ci Fadam jox ko micro bi Fadam. Fadam 2 moom moom koo xam. xam ko ci wàllu làmb dëkk mhm. waaye di décortiquer macha allah euh, ci ay affiche yu bare bare bare loo ko ci laaj mu am noo xamante ni moom la lay euh, tekkilee combat bi maanaam mu décortiquer ko mhm. alors Fadam gannaaw bi ma la nuyoo ba noppi di rafetlu tamit euh, ci xam-xam bu sell bi ak i tamit ci liggéey bi ndaxte lépp rek làmb la te day defar wàllu làmb mhm. rawatina yenn appel yoo xamante ni da nga koy faral di lancé mu jëm ci wàllu jàmm ak tamit ak non violence tey ñu ngi jëm ci combat bi nga xam ne combat bu mag la diggante abu Niasse ak euh, kii di Pape mm-hmm. mu nekk combat boo xam ni combat risque la ci ñoom ñaar ñëpp. Mm-hmm. ku ci perte combat bi dina la delloo ginnaaw. Mm-hmm. rawatina ki nga xam ne moom mooy Pape Ndoye koo xamante ni am na fuñ ko séntu woon ci làmb. mais dañoo dem ba benn instant. nañ doon gis si moom gisatuñ ko ci moom. kee nekk ci wetu Siteu nekk xaritam neena moom. donte sax ay combat mbëriwul xam naa ay six combat la bëri mais tur bi ak ka àndal yóbbu na ko fu sori ci laam mhm. te neen dafa am lu mu bëgg def ci biir làmb mu mhm. nekk combat boo xamante nii ñaar ñi ku ci nekk trajectoire bi ute na tey ku ci nekk am nga loo ci bëgg euh, sama xarit bi maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm bu baax mhm. di ko ñaanal waa Sénégal bu baax di ñaanal sama xarit bi nga xam ne moom laa àndal mi moru parcelle bu mm. baax a baax a baax yàlla yokk wéram yokk ko ay tranga yu bare bëree bëri ci barke Seydina Muhammad maa ngi ñaanal ci sit kër gii ñu ñëw mi Sénégal mm. di leen ñaanal yokkute bu baax a baax te xam ne lamb moom ku yokk rek da ngaa wàññi waaw Pam Maguene boobu li ma lay wax ci diggante Abou Niassa ak euh, Pam Ndoy mm. dafa nekk komba boo xam ne ñaari mbër yi ku ci nekk da nga am loo mën a ci lamb ja te bu fekkee ci wàllu analyse Abu Ñaasa ci kawam laay njëkk a dal. Hmm. Abu Ñaasa bu fekkee yaa ngi may dégg Pam Ndoye yaa ko ëpp coow ci tur ci bés bi. Hmm. li nga wax waxagu ko. Hmm. mais na nga def attention. coow li ma gis nga di ko déclenché ci làmb. ci signature yeeg yooyu ngalla bu mu ak si stade. moom Abu. waaw moom Abu Ñaasa. ndax da ngay bëri mbër moo xam ne nii. mënatewut ci biti ci géew la mëne. te ci structure bu mag la jóge muy Fass. Mm-hmm. léegi mu nekk Fass Ndakaaru. mu nekk Kati Diop nekk fa ñoom Moustapha Gueye nekk fa. te yaakaar naa ne Pam Ndoye am na fu mu jógee ci wàllu làmb. Mm-hmm. te yaakaar naa ne daan ko rek a tax mu jël la. Mm-hmm. te Abou Niassa gis naa ne ngay dégager ci miskil boo xam ne nii kenn du na entraîné woo. kenn du ne contago. dafa gën a luur ah. waaw dafa gën a taxaw gën a taxaw gën a yokk na bu baax ci combat bi. mais li ma lay conseillé rek boo bëggee daan Pam Ndoye boo ko agressé mën ngaa jël coup perdu. Mhm. te bërim àgg na fu ne. Mhm. na abu ñaasa dal liir pam ndooy. Mhm. combat la lii lii gis nga pam ndooy. Euh, ni abu ñaasa toll ci làmb ji pam ndooy toll na ko fu ko ëpp. mais dafa bàyyi ak abu ñaasa bés bi boo seetloo ci wàllu làmb. mais gis naa ko sax si dernier face à bi nga xam doon nañ ko def. Pape Ndoye ne ko maa la mën maa la dàq bëre. te dama lay dàq xam nga Pape Pape bu xeex bi commencé ci kaw abu Niass li ma koy waxal. Hmm. Euh, diggante ba Pape Ndoye bu xeex bi tàngee ci kaw abu Niass Pape Ndoye dina ko war. Pape Ndoye dina ko war. waaw dina ko war ci bëre. ndax xeex bu saxee rek. Hmm. mbër mu njëkk bàyyi xeex ba dem bëri ji rek loolu war la ci làmb. waaw te Pape Ndoye euh, gis naa ko muy xeexee crochet droite boo xam ne nii te ñoom ñaan ñëpp seen état de forme dafa changé. Hmm, Abou Niasse na xam ne daan Pape Ndoye daam fu ko mën a yóbbu ci làmb mm-hmm. waaye daan Pape Ndoye nag day dal moo la koy may mm-hmm. bul yaakaar ne fugg bi nga def ci signature ci open de presse ak yooyu mm-hmm. loolu boo ko indi stade di nga daanu te doo xam lu la daan Pape Ndoye tamit Abou Niasse waru koo daan ci bés ba ndax daa am fu mu jóge te fa mu jóge ay moroomam ñoo ngi koy raw si làmb te Pape Ndoye ci yaakaaru lamb la bokk. te yaakaarul lamb ci Pape ci espoir yi ñu gënoon a yaakaar ci wàllu lamb la nekk rakku mbër. nekk rakku mbër. Mm. sa mag bu essayé tuuti ci làmb mm. yow waroo essayé danga war a relever défi bi. Mm. waaw Lagros am na lu ñu ko xamoon ci làmb te tey jii yow loolu Lagros Lagros rek war na la jàngal àdduna. tey jii sa diggante euh, Abou Niassa war nga ko mën a ñëw rek la woo ko ci xeex. ndax PAM doy bu bëggee daan Abou Niass tey day woo Abou Niass. ci xeex mais wax na ko nee na ko man j'attaque je cogne et je gagne. waaw waaw nag. waaw ah, du dëgg. non non non bu bëggee daan Abou Niass. Hmm. nekk dëgg. est-ce que ci wàllub xel. waaw jàppoo ne Pam Ndoy moo gën a ñor ci wàllu. bëri waaw mais Pam Ndoy bés yu mu bëree. bëri xel waaw Pam hmm. Ndoy bés yu mu bëree Abou Niass bëri gu ko. Hmm. boo xoolee Pam bëri na bés yu mag. bëri na bés yu mag a mag a mag mag. te Abou Niass coow lamb moo ko indi fii mu toll. kon tey jii war naa mën a wan ne man lamb coow indiwu ma ci. lamb ay preuve ma fi indi. kon tey ji Pam Ndoy na xam ne yaa ngi bëri mbër moo xam ne tey ji boo ko gëddee du arrière. boo ko dóoree dina bëgga a fayu kon kooku neex naa bëreel. bu xeex bi saxee. bu xeex bi saxee bu ñu taxawee. waaw xam nga làmb jooju ku ci war rek di nga daan ta morom. maanaam bàyyi xeex bi dem def dem bëri ji waaw mais fekk ne xeex bi sax ci kaw. Hmm. ndax ñoom ñaar kenn mënu leen see xeex. Hmm. kenn mu leen te xeex mënul ñàkk waaye ku ci bëgg a daan di nga a xeex ba mm. waaw mm. ndax diggante Pam Doy Abou am na koo xam ne nii gauche droite lay xeexe am na koo xam ne crochet droite lay xeexe mm. boo xoolee Pam day lay jéem a kor ci kaw jéem laa dur crochet droite Abou Niass nag day bëgg a dur crochet gauche te léegi ñoom ñaar ku ci gën a liir làmb ja rek mooy bu demee ba xeex bi xas sax ci kaw rek nga dagg xeex ba paquetage am na doo na yóotu ngem bu bët bu tuxlu am na wala nga def paquetage wala nga xool neneen noo defee say pexe ci pour bëre pour bëre ba tijjee ko jàpp paquetage jàpp ngemb. Mhm. wala def yeneen i clé. Mhm. est-ce que loolu dina yomb ci ki nga xam ne moom mooy Pape Ndoye boo xoolee Abou Niasse daf ko ëpp voix bu daf ko ëpp poids volume bi keroog bi ma leen gisee ñoom ñaar. waaw xam nga tey jii bërikat. Hmm. ñu dàq bëri Sénégal. Hmm. chaque jour ku ñu to bëri koo toll ak doole day nëbb sa bëri. Hmm. ñu dàq bëri Sénégal sa préfère pour sa bëri feeñ nga bëri ku la sut. bëri ku la doole. Mhm. boo jàppee ci ngemb gi ndax njoowaan ci garab lañ koy takk. waaw njoowaan pour nga njoowaan njoowaan gu neex ci garab lañ koy takk. Mhm. ndax tey jii gar bu di nga am nekk à l'aise ndax Pam Ndoye li koy may pour mu mën a nekk à ci bëri ba loxoom day dugg ci ngembu Abu Ñaasa. Mhm. bu loxoom duggee ci ngembu Abu Ñaasa bu Abu Ñaasa defee yenn effort yi rek. Pam Ndoye dina mën a ibbi bëri ba. te bu baax bëri ba day tiijeeku. na Abu Ñaasa xam ne dàqute bëri Pam Ndoye espoir la comme moom. te mhm. Pape Ndoye daa bëri ñoo xam ne Abou Niasse bëri ñoom. Mhm. kon Abou Niasse war naa mën a jox Pape Ndoye mhm. lamb ji bu la neexee defal lépp waaye boo duggee ci biir géew bi. jox ko ko jox cër bi. non bu ko jox na ko jox ma déggee loolu Pa non Pape Ndoye mooy favori. ndax daa bëri ak ñoo xam ne Abou Niasse bëriwut ak ñoom. dëgg la Abou Niasse nag liggéey na ci lamb ba mën a dab Pape waaw kon loolu ay preuve la yoo xam ne nii Pape def na ko. ñëwal ma Cheikh Super Jamono ak euh, Mamor. combat spécial <laughs> boobu. waa xam nga combat spécial boobu dafa dem ba dafa nëbb grand combat bi. ndax lamb coow la sant. Mhm. lamb dafa sant coow. Mhm. diggante super Cheikh Cheikh super jamono ak. Euh, Mamor Mamor ndax Mamor dañ sorti bi mu mujjee def tiim naa ko arène national mhm. mu daan benn mbër bu dëkk Kër Massar. waaw te keroog bi waaw waaw Paul bu Daara keroog bi muy daan Paul bu Daara da ko bàyyi bés ba. te ndaanaan la waaw waaw non non dafa ndaanaan la ci biir géew. ndax Mamor keroog dafa bàyyi Paul bu Daara bés ba. Paul bu Daara ñu indi mbooloo mu bari. a jumloo ko. Mhm. waaye li may wax Cheikh Super Jamono bu fekkee yaa ngi may dégg da ngay bëreeg mbër moo xam ne nii mag la ci làmb. Mhm. moo la jiitu ci làmb. Mhm. tar dem ci làmb moo tax ngay muy bëreeg yow. Cheikh boo bëggee daan Mame Mor lii mu lay woon yi du dëgg ci moom. soo bii Mame di def ci géew beeg. yi muy signé ko ci signature yeeg. coow li ñuy coow ñoom ñaar ñëpp du dëgg ci làmb. waaw non non. Mamour dafa bëgg a juumloo Cheikh Super Diamono. Mhm. mais combat déclenchement bi la tamit. waaw combat parce que Cheikh Super Diamono am nu mu doon demee waroon na mën a weesu combat yi. na a weesu défaite ko moo ko teg fii ndax Cheikh ko tax mu jël Mamour. Mm. waaye nag xam ne Mamour lii muy wax nii Mamour day bëri si. day bëri si xeexul non non Mamour ba day bëri si xeexul. Mm. ñu ngi waxante ne ñoom ñaar Cheikh Super Diamono gis naa ko mu dem ba topp Mamour ci fuggam mm. te Mamour loolu mu koy gëmloo amut. waaw Mamour day bëri si. bu xeex ba saxee Mamour dina ko war. dina ko war waaw bu dóorante amee Mamour dina ko war. te Mamour bëgg naa àgg ci wetu Cheikh Super di préparé. na ko ci njëkk. muy cong mu sax moom Mamour di cong. ndax Cheikh Super Jamono dafa war a njëkkalante ak Mamour song mi. warut a bàyyi Mamour di ko di ko njëkk a song. war ko njëkk a song non no bu ko njëkk a song da koy daan. Cheikh Super ñoom ñaar cong ma ku njëkkalante rek am nga message pour daan ta aca euh, Mor Diouf xam naa benn kàddu rek euh, foofu la ñu daal tëjee balaa may dem euh, ci Fadam 2 alors tey mën nañu wax ne combat jeunesse bi la combat ñu am mbooloo parrain itam ñu am mbooloo lañu ki ko tëgg tamit ndaw la yàgg ci làmb tarbiyu làmb gis nañ mu toj Gambie toj Sénégal alors tey ban appel ngay lancé ci supporters yeeg amateurs yi donte sécurité bi wax nga ko double nañ ko. jël ngeen seeni i matukaay bu baax a baax ak takk der yeeg ak waa CNG yëpp lan ngay woo ci amateurs yi ci bés baax waaw Pape Maguette amateurs yi supporters yi dañ leen di woo si non violence. Mm. parce que làmb nag euh, kaf fooree la. Mm. amaana ndam li du mës a génn senegal mm. ñi daan ñëpp biir Sénégal la fanaan. ñi si ëpp boog sin daani sax biir Dakar la fanaan. moo tax dañuy woo ñëpp. si non violence renforcer nañ côté sécurité lépp pour woote jàmm si bis bi xëy na euh, bis ay mbër yu am ginnaaw lan petit premier combat ba dixième combat amul benn mbër moo xam day ñëw si stade tudd mobilisé waaw mën na ne Sibor Alliance Baldé siboor rek déjà mobilisation bu garaaw mu ngi koy xaar Kër Massar te moom mbëru coow la Alliance Baldé te coow la jeex jàmm ku ko xam xam ne euh, Grand Dakar benn tali yooyu yëpp ay am la mu war a bëre si bis bi nekk xale boo xam tamit yaakaaru làmb la te su jógee mbooloo bu takku da koy ñoom moom ñooñu faalewuñ sax grand combat yi. Mm. ay jeex jàmm ay Siteu bu Ngor. Mm. Farambar Sibor. Mm. ay ay Léopold ay booy am ginnaaw ñooy. bëree ay bés la ci biir ay bi ay ay combat si combat la. parce que tamit euh, après combat yi su tasee ñoom daa am combinaison yu war a amaat si biir. moo tax booy ba ni may waxee yow ñu ngi jaayante si côté mobilisation. ku nekk dafa taxaw ne sama morom du ma ëpp mobilisation si journée bi. kii taxaw ne man maay jël euh, euh, partie bi ba mu feesal ko. Mm. ça veut dire ñu ngi xaar benn mobilisation bu garaaw. Mm. di woo booy si dal nag. Mm. te xam ne làmb kaf fooree la soxlawuñ fa violence. côté yëpp nag domaine nu sécurité moom wax dëgg yàlla renforcer nañ ko à cent pour cent. waaw côté CNG bi lépp lu nu waroon a diggante ak CNG tamit. matal nañ ko. waaw di ñaan daal yàlla jàmm bis bi mu am jàmm bu doy. am réussite. waaw di si woo amateurs yëpp. Hmm. particulièrement tamit ñu ngi woo les jeunes amateurs. Hmm. waa njiit bi di président Gora wax dëgg yàlla du jóg di nu conseiller du hmm. jóg di si jàpp. waaw du jóg tamit du xalaat ndaka lay def ba jam production bi nekk label bu mag. mën na ne sax label bu mag la. parce que tamit ñun yemuñ si Sénégal kas dañuy tëgg Sénégal di tëgg Gambie. di tëgg si régions yi. waaw par dem nañ fi Fatick tëgg fa événement ñu ngi waaj ay Kaolack ak yooyu. ça bu mag la. waaw su dee ñaan nga am nga sànni ko su dee conseil soxla nañ su dee leneen soxla nañ ko. Mm-hmm. parce que tamit bëgg nañ ko yaatal ku nekk gis sa bopp. daal incha allah waaw benn benn moo bu gàtt rek ndaxte loolu moom sama sama mbébét la euh, benn mbër boo xam ne si ñun la nekkoon nekk Amérique nekk ci ay jafe-jafe xam naa sax ñun la mu def ak ak la xew ak ñun loolu suñu yoon newu ci waaye tamit xëy na li nga xam ne ware na ko woon ci làmb ji ba ba muy dem foog naa ne nekk na loo xam ne amul benn tache noire tey yan kàddu ngay mën a yëkkat ci moom di kii di Jaguar boo xam ne xam naa sax mi ngi seetaan. waaw Pape Maguette euh, Jaguar ku xam-xam ne mbër mu yaru la. Mm-hmm. waaw moom daawul si nga xool nit sax. Mm-hmm. mën na ne dafa juux si làmb mais. bokkul sax du mbër si làmb daal mm. da see juux mais bokk si. Mm. waaw kooku nag eh, bépp tuuma bu ñu teg si kawam dañuy ñaan yàlla rek suñu borom teggil ko ko parce que nit ku baax la kenn xameewu ko bon. Mm. nekk na fi ba jóge fi kenn dégg musu ko dégg si lu ñaaw. musul am problème ak CNG mën na ne moog Tidiane Faye sax bëri nañ Kaolack mais ba mu fa jógee moog Tidiane comme Mburoog Sow. si lañ gën a jàppante. ça veut dire ne nit yu mel noonu na leen Sénégalais yi taxaw suñu ambassade yi si gën a taxaw. neexul sa doom su fa nekkee bépp condition bu mu fa nekkee il est temps suñ nguur yi di leen bàyyi xel di leen taxaw ku xam Jaguar nag xam ne nit ku discipliné nit koo xam ne kenn xamee ko daray caaxaan waaw ñu ngi koy ñaanal nag nattu yi niy wax si moom suñ boroom teggi ko waaw ba mu ñibbisee ak jàmm si réew mi daal jaajëf Mor loolu loolu rafet la ndaxte ak lu làmm la rek ak ñeneen ñoo xam ni sax caabi féet na leen ginnaaw tañ nekk fii nii ci biir réew mi ñoom ñëpp lu mel ni ay ñoom bébé jeen ay euh, ñoom ki nu mu tuddati ji euh, ki nekk jimboor yi waaye Euh, Bébé Saloum ñoom ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel alors euh, Fadam de yow tamit loolu lan nga ciy wax euh, Jaguar xam nga ko seetaan nga ko ñu bëri ñu ngi wax ci wàllu yaram mu nga ca États-Unis nekk si ay jafe-jafe yan kàddu ngay jàllale ci côté boobu. waaw amati na solo ba Maguette Mboup di la ñaanal jàmm rek de xam ne Jaguar leelu ko dal. Mhm. jombul kenn kuy nooyi. Mhm. te yàlla moom aji muñ gi rek lay àndal. Mhm. di ko wax ne ko nit ëppoon na problème noonu te tey ji mu koy nettali. Mm-hmm. Euh, di ko wax na gën a delloo boppam ci yàlla. Mm-hmm. te xam ne bu fekkoon xol moo tax nit du am nattu. kon moom mm-hmm. du am nattu. dëgg mais yàlla képp ku mu bëgg rek lay teg yenn nattu yi. waaw di ko wax ne ko na gën a góorgóorlu. te xam ne yàlla mi ko teg. moo koy teggil boppam. Mm. ba tey jii ñu muy wax ci leneen. Mm. ndax yàlla gëmul nelawul. Mm. waaw ndax Jaguar man xaw ma ci moom soxlu bon. dafa ma daan romb kër masaar di ñëw seen kër famille. mais dama naan ndax kii Jaguar mbër mi ma daan mi may gis muy bëri la. ko benn ci dox bu teey bi. te buy dox day sëgg. ah te kon di ko loolu ñu ko def ñaanal noonu la ñuy ñaanal Bébé Saloum. ndax tamit euh, làmb nañ jàppale Bébé Saloum. ndax déggoon naa tamit feebar na feebar métti foofu. ba jot naa ci information xam ne dañ ne boo jàkkaaroo doo xam ndax moom la. doo ko xàmmee ndeysaan waaw te xoolal bébé Diène mi nga xam ne nii yaakaaru làmb la. Mm. ah bébé Diène nekk espoir boo xam ne ci làmb. Mm. làmb woon xel équipe nationale bébé Diène bokkoon na ci ñi ci daan convoqué. Mm. ah li yëpp mu nekk koo xam ne nii xale boo xam ne nii ci làmb rek la yaakaar kon nit. bu fekkee ne sax juum na hmm. war nañ koo mën a woo yedd ko may ko sansam hmm. waxuma laak nag bi ñu xam ne nii dañ ñaan la moom la wala du moom hmm. ñu ngi ñaanal ak lu làmb yëpp képp ku ci am tolof tolof yàlla teggil la ko képp koo xam ne nii euh, yàlla caabi féete na la ginnaaw yàlla la ko yàlla dimbali nga génn ak jàmm di nuyu nag association bu mag bi nga xam ne ñun ci lañ tënku muy association jeune amateur du nuyu suñu papa ju baax ju fa nekk muy père Modou Bey ñoom grand àll képp koo xam ne nii ñu ngi ci làmb père Modou Bey dafa nekk benn mag boo xam ne ci jeune amateur daf ñuy jubbanti. ku baax benn vocalam mën na cent vocal. dëgg la ndax benn vocal boo xam ne nii boo koy dégloo Père Modou boo ko dégloo dootoo mënatu vocal. ndax ci matière yëpp lay wax. muy nekk mag mu am ñam nekk Baye fal Père Modou baay fal Fall la. waaw mag mu am yërmande la waaw di nuyu nag suñu président Goro Ndoye mi nga xam ne nii. Mm. Euh, lépp lu yokkul làmb rek góorandoy bëgg ko mm. ñu ngi ko ci ñaanal ndam di ko ñaanal Mor Diouf mii nga xam ne tamit mm. léppam làmb la mm. waaw bëri na combat yi ngay gis muy taxaw Sénégal di ci waxtaan lépp ci Mor Diouf mi ci Mor Diouf mi lay jógee mais nag da feeñ lu bari mais lépp làmb moom la di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal jàmm ba lépp loo xam ne dañ koy lekk ci làmb yàlla defal ko moom tamit mu am ko mm. am structure boppam dañ koy ñaanal amiin yàlla mën na ko kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax xam naa di leen am benn affaire spéciale mm-hmm. Papa Sow ak Siteu insha allahu rabbi waxtu bi moo ko mayewul te yéen i tamit am ngeen yeneen yitte yoo xam ne war ngeen ko dem doxi xam naa programme bi instant yi nii chargé na ci yéen di leen ñaanal jàmm yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ay jeunes ànd ak jamay jamaïcain man ak jam moom du tey yàgg na lool lool lool lool lool sax maa ngi koy ñaanal jàmm nee naa ko su ma la gisee ngay taxal ay affiche sax man damay am fierté damay kontaan trop trop trop ku ñu mel ni ki moom ak Babacar Babacar ñu koy jaajëfal bu baax Babacar Diom mhm. reporter ak mboolem association de reporters en ligne ñoom ñëpp ñu leen jaajëfal bu baax euh, Fadam maa ngi lay gërëm bu baax a baax danañu am jotaay insha allah rabbi bu yaatu moor bu parcelle maa ngi lay jaajëfal yal na leen yàlla jàppale gis nañ li ñuy li ngeen di def ci jeunes yi di taxal ay combat di leen jàppale yal na leen yàlla jàppale yéen tamit mbokk yi yéen tamit ñu leen jaajëfal bu baax a baax rendez-vous prochainement ba dimanche incha allah dawde diine lam ɓa biɗe no pinda so feyde